Bajir Bajir dañuy entraîné waay. non nan ngeen waajalee Maka Faye ndax day bëre combat boo xam ne combat capital la ku ne xam na ne parcelle ak yëmbal dër bi la. comme ni ñuy waajee combat capital lépp rek la ñuy waajee combat am waajal nañ ko baax li mu waroon def lépp def na ko boo ko xoolee rek xam na pare na xam nga orom tàngul koo wax ci làmb mu wax la benn kàddu bi ne la champion la te champion lay doon ndaysaan nee nañu xool ko nee nañu fi mbër yu toll ci làmb moom Talfa dafa toll xam nga lii lii lii lii lii jëf ju rëy mooy nga daanu mel ni yaa daan ndaysaan xool ko moom Mbàkke Fay ndaysaan ndaysaan xam nga lii dafa rëy nga bëre daanu mel ni yaa daan ndaysaan mu ngi tóojal gaa yi ndaysaan mu ngi samp gaa yi ndaysaan lii dafa rafet Ada Boy Baol ndaysaan jéemër bi ndaysaan jéemër bi ndaysaan talfa daa mel ni bari sëñ Fall. daa mel ni kontaan na. jéefeer bi kaay. def. waa Djily maa ngi siyaar ah, yàlla tere. yaa ñoo war a jël avance ñooy daw avance bi nañ jël avance bi ñu bëree. woy si ni nga amee taxawaay ci làmb. Ah. am cër ci làmb lan moo tax ñu lay gëj a ah, ñooy daw gaay nañ jël avance bi kuñ seeti mu daw kuñ seeti mu daw nañ ñëw ñu bëree. nañ bilaay walaay man lamb rek laa am lamb rek laa bëgg amul amul amul lu lamb lamb dafa dee sama na ñëw ñu bëre waaw. am na solo ñu jël borom jaal bi gaa yaa nga yënguwaat borom jaal bi ñëw. Final la jéem waaw fay naa la bàyyi ji nga ci combat am blessure sa frère sa doomu nday Mbacke Faye di open press nga dag sa yitte yëpp ñew seen diggante yéen ñaar lan la non prince saay sax damay dox ñuy jaawal mom sama mag la quoi heure moomee combat daf may xelal di sonu sama bis di ma contact la di ma defal lepp di conseil wa sama grand frère la quoi taman fi la dëgg parce que la Cambérène ak Mbawar ak xama di sant ñepp nak képp kuy bëgg Talfa rek man aw seen fay quoi man néna naa non ñepp noonu bëgg daanu naa mais ñëpp a ma bëgg. mais loo leen defal bañ bëgg la. dara xaw ma rek lu dul mbokku taalibe rek yar ak teggin kese man noonu laay doxee quoi ku ma gis def la comme sama bopp waaw. rëm mi muy bëreel xam nga. non xam naa xamul làmb nii rek waa lan nga koy conseillé Mbacke Faye. waaw Mbacke di ko wax na dal rek ñun na nañ bis bi quoi parce que ndamu parcelle ñun suñu ndam la waaw defetu parcelle day mel ni ñëpp ñoo ko bokk waaw. reprendre waat say entraînement wala. non instant yii mooy loolu damay faju quoi waaw waaw. lu médecin yi wax. non suba laa war a dellu quoi incha allah waaw. mais waaw maa ngi am tawfeex bu baax. askan bi namm nañ la ak lu làmb namm nañ Guéweul non dëgg la billaahi dëgg la amaana day lu gën rek sant naa bu baax nag waaw sant naa yàlla bu baax defet bi am na lum la jàng non man jàngalu ma dara ama sant yàlla rek dama xam ne daanu moo ñëw rek ma war a daanu ah. waaw parce que ñuy daanu gënuma leen ba léegi dañuy ñaan yàlla bu na amee combat yàlla may ñu ndam rek waaw mais kuy bëre ku ne da ngay daanu quoi mais sant naa ñëpp waaw sant naa ñëpp mbayar ga maa ngi sant ñëpp ñoom Assane Sarr ak xam nga Baye Matar daal gars yi man li may damay juum ñëpp mbayar gi parce que gars yi ñëpp a sonn dafa seen tise di seer mais yàlla baax na ñëwaat mooy daax incha allah bien topp. Eh, wala boog. waaw ni ñuy tis rek. da ngeen am seen diggante ak rëm. rëm waaw nan ngeen koy waaj. waaw comme ni ñu doon waajee lamb rek. Mm. lamb ji dañ ko fonk de. waaw comme ni ko comme ni ñu woon doon waajee ay lamb Modou Lo di génn. barke alxuraan moom lañ ko waajee si contact yeeg ci préparatif yeeg ci lépp incha allahu rabi. Mm. waaw noonu lañ koy waajee incha allahu rabi. rëm xam nga ko. waaw loolu man ngeen laaj ne xam naa rëw. xam nañ ko bu baax a baax a a jom xeex ak bëre. yëpp da koy daan incha allah rabbi waaw waaw.